xale bu yéen xamadi boobu xale boobu dafa xamadi rek dam ko ne rek muy saaga rek mu ne muy saaga. donc da ko dolli. dafa la saaga. Mhm. léegi saaga sama famille saaga tout le monde da ko ko dolli. léegi kooku waruñu koy wax sax si di en plateau aussi sérieux. non parce que c'est yow parce que yow la attaqué moo tax. parce que day waaw man ak toute ma famille. mais euh, j'ai passé la journée à la cybercriminalité. léegi da nga déposé une plainte. j'ai passé la journée à la cybercriminalité et je vais gérer la cybercriminalité allemande ak man. waaw ah, day saf sàpp. jàpp nga dina dina dina aboutir. dootul sagati. mais ñi ko wax bëri nañu te ba jusqu'à présent il continue. c'est Ndella Madior. c'est Ndella Madior. voilà gis naa na nag gis na bës bu si am. parce que la Madior ak ñeneen du benn parce que Ndella bu bëgg si am xaalis bëri bëgg doli, doli, doli, dooli dooli mais bon euh, man kenn du ma saaga quoi ko defati. dootu ko defati non paquet de man ak toute ma famille. mais euh, j'ai passé la journée à la cybercriminalité. léegi da nga déposé une plainte. j'ai passé la journée à la cybercriminalité et je vais gérer à la cybercriminalité allemande. allemande waaw day saf sap. jàpp nga ne dina dina dina aboutir. dootul saagaati. mais Nico ko wax bëri nañu te présent il continue. c'est la major. c'est la major. voilà gis naa na nag gis na bës bu si parce que la Madior La ñeneen du benn parce que Ndella bu de siam am xaalis bëgg dooli dooli dooli dooli waat mais bon euh, man kenn du ma saaga dootu ko defati. dootu ko defati.